ñu ñëwoon fii nag euh, ngir waxtaan ak euh, comité euh, unitaire bi xamee ne moom moo ëmb ñi xam ne ñoo yëngu ci wàllu diine ci këru diine yi mouvement diine islaam yëpp ci Sénégal bunt la boo xam ne mënuñu ko ñàkk fëgg ndax ni ñu bindoo kuréel la goo xam ne boole këru diine yëpp ci yëngu ci lislaam ci réew mi Euh, te amul xejj ak seen foofu lañu mën a jaaree ngir mën a yegg ci askan wi ndax ñoom lu ñu mën ci askan wi ah dayo bi ñu am ci askan wi amul beneen kuréel bu ko am moo tax ñu ne foog ñu seet si leen euh, jox leen seen euh, dayo wax leen suñ yaakaar ci ñoom ndax lu ñu tekk ci réew mi ah li ñu toll ci réew mi ndax ñun réew mi réewu diine la Euh, rawatina bu lislaam lépp loo fi def te euh, jaaro ci ñooñu dugaloo ci ñoom du mënu mën a mënta antu euh, fekk si suñu yaakaar bi ñu amoon ne li ñuy jéem a dab-dabal buñ ko tegee seen loxo am nañ yaakaar ne dañ yegg fa ñu bëgg mu yegg loolu pétition bi pour ñu ñu signé wax ne ànd nañ ci laaj bi ñu laaj mooy ñu teggil Afrique bor bi xam ne moom la ñu gàll ci ndoddam ci bér bu diis buy faagaagal koomam te ñu nekk ci jamono mbas boo xamee ne li ñu ñi tal réew yëpp laa wax nag amul bu ci mucc moo di fexe nu ñuy faje li xam ne moom mooy feebar bi nu ñuy euh, aare seen askan ba ñu mucc ci euh, feebar bi ci mbas bi ba génn ci euh, rawatina nag mbas bi dafa dal ci ñi noo xamee ne ni dafa faagaagal sax koomu réew yi loolu bu amee ñu ñaan li xamee ne moom la askan yëpp di sàkku moo ni ñu may leen peex goo xam ne dañ mën a gën a mën a demal seen bopp dañ gën a mën a taxaw génn ci musiba bi loolu Afrique di sàkku moom tamit te ñu dolli ci ne lii ñu gën a mitti mooy bor boobu nuñ ko tëgge dafay not Afrique ci notal goo xam ne du ci génn ba mukk ilaa yow mi diin ndax bor boo xam ne doo ko mën a fay ba mu sotti at mu jot mu taxaw sa kanam te boo jëlee misaal ci Sénégal euh, at mu jot mu war a génne lu toll ci juróom ñetti téeméeri milliards loo xam ne xajoon na feneen te ñuy réew yoo xam ne réew yu ndaw lu yuy jóg bëgg jóg bëgg tekki euh, am nañ yaakaar ne loolu xaj na suñu su ñun te wax dëgg yàlla niñ ko defalee ñeneen ci jamono parce que maa ngi fàttaliku deuxième guerre mondiale bañ ci géddee ay réew Europe dañ leen jox xaalis bu takku te laaju ñu leen dara ñu fay far seeni bor loolu ñun ñi xam ne ñu ngi ci loo xam ne xëy na du guerre mondiale waaye espèce su guerre mondiale parce que lu tegu suñu kaw loo xam ne ñu ngi ci euh, nit yaa ngi ciy dee comme baa ngi nërmeelu yëngu-yëngu ngir dund mu ngi nërmeelu loolu mën nañ ko méngaleex guerre mondiale kon laaj boobu laaj bu war la. waaw nag amul xayma boo xam ne dañ koy euh, euh, fas ne fii la ñu yem dañ doon xool rek xayma ne xëy na. Euh, bu ñu war nañu dem ci million jógee demaat ci yeneen million parce que mbir mi du mbiru Sénégal rek mbiru Afrique yëpp la di ñaan ñëpp nag ñu mën a euh, ba signer pétition boobu euh, surtout ñi xam ne yëpp mën nañ dem ci internet www point iada africa point org ku ca dem moom di nga mën signer pétition bi tey suñu initiative en tant que cadre unitaire de l'islam mooy jàppale leen ci liggéey boobu ndax comme neen ko xamee Sénégal réew la boo xamante ni diine daf fi am solo muy diine catholique bi muy diine jullit bi euh, te bu fekkee ni kilifa diine yi àddu nañ ci loolu dina tax population yi askan wi gën koo mën a euh, yenu ngir li nga xamante ni ay jafe-jafe la di det diñ ko indil ci réew mi ñu mën koo teggi dañu ñëw jël riba boobu di ko teg ci suñu kaw ba muy faagaagal suñu ay économie di faagaagal loo xamante ne war nañ ko mën a euh, waroon nañ ko mën a taxawee ci wàllu école ci wàllu santé ci wàllu euh, lépp loo xamante dañ koy soxla ci réew mi det boobu tax ñu euh, duñ ko mën a ñoŋal dafay laaj sénégalais yëpp jóg nitu diine bi comme nitu àdduna bi jàppande ànd ngir mën a xeex lool tey loolu mooy tey suñu initiative ñuy wax ne tey dinañu yëggale seen i seen seen i mbëbët ci kilifa diine yi yëggale ko ci nga xamante ne mooy association religieuse yi ba ñu porte ñun ñëpp combat boobu ngir mën a euh, xeex li nga xamante ne moom mooy euh, service de la dette boobu ñu xool ndax lañ ko mën a wàññee wala ñu mën ko annuler carrément